ñun dañuy rafetlu dogal bi ndaxte yaakaar naa ni waroon nañ ko jël bu yàgg euh, gannaaw ba ñu gisee li xew ci àddina bi ñu xam ni àddina bi léegi euh, village planétaire la la xew fële ne ci biti réew mën naa xëy xew fii nii ci Sénégal te mooy li am boo gisee nag président jël dogal bi nii nit ñi buñ ko jël à la légère ndax mbir mi doy na lu nekk na lu doy waar lu doy waar naam Euh, euh, lii ci xaw a euh, dalal xelu sénégalais yi loo wax ñu ne yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na mais ñi nga gis ni ñoom la ñuy yaakaar ci wàllu diine ji sax nee nañu nañu topp ndigal yi nga xam ni moom lay waaye wérgu yaram yi digle. au préalable waroon mën a def ay garde-fou yoo xam ne kenn warul woon mën a dugg sur le trottoir parce que kenn amul woon benn cas. nga jékki-jékki ni bàyyi tubaab yi bàyyi la neex mais suñu kii bi suñu frontière bi dafa ba imperméable. li ma gis nii nee nañu xale yi bu ñu jàngi mais xale yi bu ñu jàng aussi tamit parents yi conscient wu ñu encore ci lan moo tax ñu jël boobu décision ñu ngi bàyyi xale yi ci mbedd mi. man bi ma génnee léegi nii sama kër ba léegi nii maa ngi daje xale yi ci mbedd mi ñii ña nga dem ca terrain ya de di daawaalu ñii ñu ngi ci te loolu taxul woon ñu jël décision bi situation bi doy na waar si doy waar boo xam ni décision bi bu ñu ko jëlee aussi tamit nañu topp ndigal yi ndax li ci mën a musle rek pour l'instant loolu moo fi nekkandi maanaam euh, sàmmonteeg li nga xam ne moom mooy li ñu digle raxas loxo yi surveiller xale yi ndax xale dafa nekk couche boo xam ni couche bu vulnérable la li mag mën a moytu ak li mën mag mën a xalaat

ñu attendre affaire bi mais day day war parce que fofu nga mën a foofu nga mën a euh, mën a foofu la mën a mën a liggéey parce que yow boo xamante ne naan ay 17 personnes wala 10 personnes te ñu ñu atteindre mal yu bari na mais chiffre chiffre pour man c'est pas exact pour loolu chiffre yi nan xool na range ñu bañ a nëbb population bi parce que Sénégal gi ñun noo ko bokk réew mi suñu réew la quoi qu'il arrive nous resterons toujours des frères ah nan nañ jàppalante xool affaire yi waaw jox les médecins bu baax mais aussi tamit ñuy lancer appel accompagner beaucoup plus la service d'hygiène parce que lii ñuy wax pour aar askan kenn gënu leen yey service d'hygiène ci commandant bi ci boppam nee na euh, jumtuwaay yi matalewul ci alxames bii nga xam ne rek moom la ñu génn dañ ko invité woon à rajo muy waxal boppam nit ñi di ko dégg ngaam nañ leen dimbali yokk leen ay moyens parce que OM tamit am na rôle boo xam ne rôle bu am solo la bu ñu war a jouer gannaaw ñun tamit bi ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi ñaax askan wi